ci suñu jëmm yi la nekk nga xam ne bu ñuy ñëw dañu koy ëndaale donte mënaguñ koo jëfandikoo waaye bu ñu koy bu ñuy dellu it dañ koy yóbbaale donte mënatuñ koo jëfandikoo kenn ku ne daal ak bosam muy aw làmmiñ ak ay yoxo euh, muy ñaari cër yoo xam ne benn bu ci nekk bu ñu tuddee njariñam kuñ ci tudd njariñam rek mën naa yóbbaale ka ca des waaye kuñ ci tudd njekkareem mën naa yóbbaale ka ca des bu dee ci <clears throat> làmmiñ fan yi ci réew mépp néew na ku xool télévision wala mu déglu rajo wala yeneen yi nga xam ne day jottali xibaar te déggu ci ay wax kii wax kii wax kii wax ku ne di wax wax moomu nag dafa mel ne am nañu yor ay làmmiñ te mënuñ ca wax te di ay doomu aadama kon secret bi suñu borom def ci aw làmmiñ la ndax am nañu yor làmmiñ ni ñun te bu ñuy wax bu ñu bëggee wax dañuy layaar dañuy junj moo tax ka doon jàngale naxwu di ko tomb ci wala daf ne suñ nee na am njariñ na fekk mu génnee ci gémmiñ bu génnee ci gémmiñ nag junj ak yu mel ni moom day dàqu kon ay wax yu ñuy dégg lay doon day day wax ñuy dégg euh, ginnaaw nag wax bari na ba kenn talatu dara léeg-léeg nit wax loo xam ne day yóbbu loxo gémmiñ te fekk du ab tipp moo ko ci yóbbu ñu xam ne wax lu yéeme la lu mën a defar la waaye lu am njekkare la itam njekkare ndax suñu borom mi ngi waxoon ci alxuraan ne nit du wax benn baat benn nga xam ne baat ay xaraf moo koy mooy daje mu tudd baat waaye araf bu mu ca tudd boole ko moroom ja ñu ànd niru dara yàlla nee na mi ngi ko denc fi barab du réer du raaf du naax saay li ko waral mooy am na ñu ñu booleel ñoo xam ne saa boo ko génnee dañ koy daal di capté capté mooy balaa dem fenn ñu jël ko dal ni daal koy daal koy bindal ci sa téere bañ lay bindal su fekkee dellu nga gannaaw tuub ko yàlla mën na leen ne far leen su nee càll nag ba bis ba muy jàng téere boppam ñépp yi dégg su boobaa nag loxo mën naa dem gémmiñ wala sikkim nga ne ab dënn yàlla nañ ci yàlla musal maa yalfisu min qawli illa ladayhi raqibun atid kon suñuy wax waxuñu di ko capté nii ci ay waxukaay waaye yàlla neen dañ koy bind boole ca sa naktubu maa qaalu ku mën a doon daal na léeg-léeg nag nit génn ci gémmiñam ay wax mu wër àdduna bépp ba mu koy wax jàppewu ko woon dara waaw daa toogoon fa mu toog rek wax ja xumb ba xumb rek wala sax mën na ko waajal waaye daal jàppewu ko dara te fekk fa yàlla moom dara rëy ci kanamam waaye wa huwa indallahi azim bu ko yàlla waxee moom ëpp na suñu nattukaay ci rëy taquluuna bi bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa taxsabunahu hayyinan amul solo am na bunt yu man a jaar génn ca lu ko ca mën a fekk te waxam joojee wa huwa inda allahi ay nit a ngi nii yoo xam ne yàlla tëkku na leen ëllëg ju leen waajalal mbugal mu metti te fekk sax jëfaguñ dara lu leen lu leen koy teg waaye dañoo wax yi dañ ne woon yàlla moom loxoom yoxoom yi nga xam dañ ko def jëmm yoxo yim yor daal daa mel ne léeg-léeg dafa kuuñ kuuñ mooy loxo bu dagg ca conc la mënta joxe yàlla nag ginnaaw tudd na wahaab tudd baasit tudd lu nekk ci tur yooyu melokaan yooyu mu ne xanaa ñoom la seen loxo yi doon ay kuuñ loolu ñuy wax nag danaa ko toppante ak ñoom ëllëg qaalat alyahud yadullahi maglula gullat aydihim wa waaye am na ñoo xam ne it daf ne dinañ leen yóbbu na te dutuñ fa génn bu ñu fa xasee ba dugg ba faw dutuñ fa génn ba faw xaalidina fiha te du luñ jëf waaye luñ wax la ndax mooy ñi yàlla di wax ne buñ déggee dëgg duñ ay jullite waaye buñ déggee dëgg moom nangu ko fa saasa ndax xàmme nañ dëgg ak caaxaan nañu koy nangoo seenub xol lay doon waaye mën nga ko xam ci seen jëmm ndax dangay gis seen bët yi taa ñu tàmbalee jooy bu ñu leen lu ngeen jooy lu ngeen di jooy ñu ne ñun ko dañoo dégg loo xam ne dëgg-dëgg bañ ko déggee fa saasa lañ ko nangu xam nañ ni lii moom du ay caaxaan kon boog yàlla nañu yàlla dimbale bañ bokk ci ñi nga xam ne saa bu ñu gisee dëgg nangu ko ñoom daal loolu lañu wax yàlla ne fa asaabahum allahu bi ma qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wax rek lañ def mooy ida samicu ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min addamci mimma arafu min alxaq daal di ñaan yàlla mu bool leen ca ñiy dégg dëgg nangu ko rab yaquluuna rabbana amanna faktubna maa shahidin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy waxati ku bëgg a wax na wëndeel aw làmmiñam ci gémmiñam ay yoon yoon bala mu ko génne bu bu fekkee la muy wax su ko waxee dool batikuwaat di tuubal yàlla wala muy jégalu nit ñi na wax su ko ci loolu du fekk xam na loola mooy lu baax waaye su ko wóoree ne lii moom day nëbbutu wax ko du génne xar walla day soppi baatam jëru ko na noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw li yasmut ki nga xam ne it lu baax xàmmee na ko akub safaan ba wax ko it su ko waxee ne noppiwaat ba wax jotaat wax lu baax mu door a waxaat waaye bu mu dégg rek tubarkalla tubarkalla rek mu tàñaaña fu fuy fii rek lay mujj yal nañ ci yàlla musal moo tax waaye ngi nii ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga tegtal ma lu may def dem aljanna ëllëg mu wóor man yaa ma ko joxañ su ma ko defee dem aljanna mu ne ko téel kii daal di laal làmmiñam bu tedd rek del noppi del noppi rek boo wax te munta ñàkk nga wax lu baax lu yem yam ca dal ko ne xanaa xamoo ne am na ëllëg ñoo xam ne dañuy sëgg ca sawara di cof mel ni di dëtëm di dëtëm ca sawar dëtëm mooy di naan di nit nit kuy naan te jëfandikoowul ay yoxoom lu may dëpp ci palaat bi xanaa xamu ne ëllëg dana am ñuy dëtëm ëllëg di cofaatu sawara te la lañ ko yóbbee mooy seen làmmiñ yaa lañ ko yóbbee lu waxoon ci seeni làmmiñ eh, kon loolu liñ ci bëgg a mooy ne ëllëg yàlla day fay cër yëpp bay fayaale làmmiñ sax ba di ko dësamloo ki saawara mu tàng jër te ku ne xam ne làmmiñ ku naan lu tàng sax bu ko laalee muy bëgg a tuskare waxuma laa sawaraw ëllëg nag yàlla ñun ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki ji rek moom lay saxla su jiyee ci àdduna li mu si bàyyi lépp wax ju baax la su ëllëgee buy jàng day wanewu moom ci boppam ay soppeem yépp di wanewu nan kee suñ la waaye su jiyee ci làmmiñam leneen it su ëllëgee suy wax gaa yi ko xamoon yépp dañuy sëgg yàlla na nu ci yàlla musal moo ne tudd naa làmmiñ ci lu gàtt ci lu bare bare bare bare waaye ku tudd làmmiñ mënut dem bàyyi fa ay yoxo yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ne ci jëmm ndax bari na lu ñuy wax loo xam ne dañ koy bind ki koy wax da koo jàng ci mbind moo tax bind luy dal làmmiñ ëllëg du dem bàyyi ko moom yoxo mi doon bind li ko waral mooy alxattu tabqa zamanan baada katibihi wa saaxibu alxatti taxta al ardi madful mbind mën na fay def ay ab diir ndax bari na ay téere yu ñuy xool nii di ko liir walla ñu di ko tërallu ka ko bindoon ba mu fi jógee léegi ëpp na ñaar téeméeri at te mbind maa ngi fi di wéy ñu naan diw nee na ba fii mu nekk nii di nett di ciw làmmiñ lam bindoon moo tax mag ñi nga xam ne dañ ko xamoon dañoo ragaloon a bind lool mën naa see jël misaal ñaar ñuñ xam ñu jege am na ku ñuy wax maam Cerno Birahim kenn xamul ñaata kaang la dàngal ak ñaata fóore yi kaang yi mu dàngal ak sëñ Abdurahmaan Lo ak Maam Mor Jaara ñoom ñett ñooñu kenn xamul ñaata fóore lañ jàng ñaata kaang mooy mooy ku mokkal alxuraan ak ñaata fóore yi mooy ku jàng xam-xam ba ne ar bu ma ci tuddee sëriñ Mouhamadul Moustapha tudd ci Serigne Fallilu Mbàkke ak seeni bokk dana doy sëkk ci ne ñii kon kenn mënu leen a tuumaal ne xamuñu woon te maam Thierno su fekkee am na ñu mas a gis mbindam it bu matee juróomi bayit ëpp ko te jàngal na mbooloo moo xam ne ay waykat lañu di ay bindikat waaye lam koy wax xalaat ba mu li ba mu jàngee la ak xatu tabxa zamanan ba'da katibi wa saahibul xattada ad madfun la nekkoon am na yan bu ci nekk bu diis boo xam ne dañ koy layoog jamono ëllëg moo ne Mamor Jaara it moom ci ñuy jàngal sëñ lu Mbàkke ci la bokk sëñ Abdourahmane Lo moo leen bokk jàngal alxuraan ñoom ñépp kon seenug mën alxuraan ak seenug mën a bind kenn werantewu ko ndax gises na seeni mbind waaye taxul ñu leen doon jàngal moom ak sëñ Abdourahmane Lo ku gis seen bind it néew na waaye yan boobu lañu doon xalaat moo tax tëb di bind mata waajal ndax kat lu aw làmmeñ tudd bu fekkee ci mbind la ko jànge lu mu ca am mook borom mbind ma duñ ko kenn dem bàyyi sa morom te mbind mën na fee gën a yàgg ndax alxuraanu karim jii ñuy jàng te àdduna bépp nuróole ko bu ñu ko bindutoon muy ay nett li mënees na koo dolli mënees koo wàññi waaye ba yàlla nammee mu des fi bañ fekk ko fi ñun ñu ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lu ëpp ñe junni at ak ñetti téeméer yu teg mbind moo ko fi bàyyi ñooñu nag seen mbind moo tax yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a bind ndax soo bindee rek des na ci teg baat kon kuy bañ a bind ñu teg sa baat bul bind ma wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxuttuhu bi yaminika idan la tabal mubtilun kon boog wax ak bind ci ay yoxoo koy def bind ay yoxoo koy def wax làmmiñ a koy def fépp fu làmmiñ dugg ëllëg bu fekkee mbind la jàngoon des na woo borom mbind ma ne ko ana la nga bindoon moo tax mu mate teey lool mbind sax mën naa dem foofu làmmiñ du fa àgg ndax mën ngaa wax ci làmmiñ woo xam ne ñu bari duñ ko dégg waaye mën ngaa bind ci ci làmmiñ woo xam ne fu mu dem ñu bare bare bari mën koo jàng ndax ci jamono yàggul yi rek am na benn nguur guñ daan wax ne jant du soow benn yoon ci nguur gi maanaam saa bu sooyee fi rek fenk na feneen te lépp diw ñoom ñoo ko yilif muy Angleterre nee na li Angleterre yilif si ko àdduna bi jant du fa soow benn yoon loolu moo yaatu gum yaatu ci li ko tàmbalee ci penku ba soowu maanaam fu jant bi so sooyee fii rek ci réew mii nga xam ne anglais la ñuy làkk fenk na feneen foo xam ne anglais la ñuy làkk jant bi du tiim fenn fu ñu làkk anglais waaye nag kon ku kuy bind ci anglais na xam ne mën na fee jóge téeméeri at ñetti téeméeri at junni at ñeneen di jël naan diw moo wax bi te kat bokk yi bind ak wax ci làmmiñ lu ci nekk ci xol lay jóge ak pas-pas nit ki mënees naa xame pas-pasam ci ay waxam waaye ñu ngi koy gën a xame nag ci mbindam kon bokk gannaaw wax bari na fan yii wax bari na ci làmmiñ bari ci mbind ñii bind nañ ko nañ ko waaj ñi waxoon nañ tuub ñi waxagut nañ ne tekk bu fekkee mënuñoo ñàkk wax nañ dem jàngi ba xam la ñuy wax lu mu doon loo xam ne ku koy weddi weddi moom daa yomb weddi moom yomb na lool waaye ku koy weddi teg fa dara jafe mu soog a wax lu yam bàyyi waaye nit ki su bëggee wax ci làmmiñam loo xam ne weesu na jiitu na bokk ak ganeem àdduna te munta teg loxo ci ku fekke woon na ne teg newaat teg bala ma wax waxuma laa muy bind ñi di ko jàngi feneen ëllëg kon waroom xam-xam yi nee nañ wax bu munta ñàkk nañ ko tënk ci ñeent rek bu dee ab jullit la su nekkul di julli nay tudd yàlla su ca jógee tudd yàlla mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ak yi koy wuutu fi barab moo jàng alxuraan dañoo lim lim waaye mën nañoo ànd muy loolu lam mi koy wax lam yi mooy tudd yàlla mooy jàng alxuraan ñetteel ba mooy la muy wax na doon dem di laaji lu mu xamul ku ko xam commande koo xam ne buy wax la muy wax amu ca dara ci njariñ yi xew léegi nekkalu ko ca yàlla rek tax muy wax wax la sidna Abu Bakrin Siddiq waxoon bi ñu koy laaj ci alxuraan bi ñu koy dajale mu ne leen daal man damay waat giñ teg bala maa wax su ma ci naree wax lu ma xamul daal dana génn suufu yàlla si ak asamaan si ma tiim dana génn suufam si moom wuti fenn fu may dox fu dul suufam si danaa wuti fenn asamaan su tiim fu dul asamaan suñu borom fu mu ko jëlee eh, kooku ba muy wax wuti ca dara dara nekk lu ko ca farfor la wut làqu làqu wut bokk yi nag waxi léegi nit ñi xamatuñ bëgg ak bañ xàmmewuñ ko waaye farfar loo lañ xam kon ñetteel ba mooy din di laaj yi ngir bëgg xam ci ku xam koo xam ne day wax te yàlla tax euh, ñeenteel ba noppi wax la di noppi ne cell wax la ndax fi mu ne buñ ne ndax ma teg ko fii nga ne cell waaw la tekki boo dag-dagalee bopp déedéet la tekki li lay xamal ne yàlla moo bind te lu mu wax dana ko dana ko def te man na ko ni mu wuuteele bindee fi ñun ci sunum réew bari na lool boo koy bañ dangay jëmale sa bopp nday ndeyjoor ak càmmooy nii ñu ne déedéet la wax donte wax ko ci làmbinam su dee waaw mu jege ko kaw jëme suuf am na ñoo xam ne mooy safaan bi am na ñoo xam ne su dee wax ak ñoom suñ bañee dañuy jege ko kaw jëm suuf ne fekk asamaan ci fa mu nekkoon suuf na ci fi mu nekk duma ko masa daal am na ñu tey gannaaw moo tax gannaaw tere wuñ ko wax bu wax bu mu génn ñeent yooyu nay tudd yàlla wala muy jàng alxuraan wala muy laaj xam-xam boo xam ne kam koy laaj xam na ko te bu koy wax du ci am benn lu ko ca nekkal lu teew wala ñeenteel ba mu noppi bañ a wax ndax noppi bañ a wax la bokk digle wuñ it ku noppi rek wéy dégg ko rek nekkoon naa noppi bañ a waxaatu ci dara déedéet waaye kuy wax it nay wax lu baax rek loo xam ne njariñam day tàmbalee àdduna jëm àllaaxira waaye suy noppi it muy noppi ci loo xam ne njariñam daa tàmbalee àdduna ab loram daa tàmbalee àdduna jëm àllaaxira yàlla na yàlla musal ci luy jëm àllaaxira ëllëg te du lu baax fi ma koy jeexale mooy waroom xam-xam yi nee nañ li tax loxo ak làmmiñ gën a yéeme ci cër yi nit jor nga xam ne lii ci lay waxe ab toj toj lii ci lay binde xar-xar doj bu dul faranti ba faw nee nañ cër yépp yi nekk ci nit bu ñu xëyee danañ ne làmmiñ teeyal ne yoxo teeyal ndax yoxo moom ak ak làmmiñ moom bari na ku ne fi barab ñu tëj ko te daa wax walla mu jël ci loxoom te fekk sax demagul àllaaxira waaye mi ngi àdduna moo tax saa bu cër yi xëyee danañ ko ne tee ngaa ragal yàlla ci ñun ñi nga xam ne da ñuy yóbbaale te suñu yoon nekku ci fu ngeen dugg ñu dugg fa dee leen teey yow làmmiñ bala ngaa wax wëndeelul juróom yaar yoon ba far toqi bàyyi ndax yàlla mi la sàkk xam na li nekk ci yow ci njëkkare ndax ci gémmiñ la ko dugal tëj ko ak i tuñ sakkat ko ak i gëñ fanweeri bëñ ak yaar yi nit di am dellu ko takkaat ku tàllal aw làmmiñam jëmee ko kaw dana gis lu mel ni ak càllal lu ko tiim lu ko téye mu mel daa jógee ko jëm suuf mu ne ko gannaaw ay tuñu ko séq nga xam ne bu ñebee doo ko gis ay gëñ waraat ko fanweer ak yaar moo xam lim bi lim ci jublu dellu ko takkaat ak càlla la bu jógee ci kaw ci suufa suuf jàpp ci làmmiñ nga xam ne bëgg a jóg yan li am na fu muy yàpp ñu ne ko tee ngaa ragal yàlla wëndeelu ci biir gëñ yi ay yoon yoon bu bu bu ñàkk nga def ko fukki yoon ak yent muy yaari juróom-ñaar xanaa danga nga tay toqi toogaat lu ko mooy rek danga ñu indil musiba ñu dugal foofu duñu mën a génn yàlla ñu fa dugal yow kon ragal yàlla si ñoon lu ko may dañ ko toppante ak yow ëllëg dan na yoxo yow yi ngay jël te kenn joxula ko it léeg-léeg nga yóbbeenu fitna ndax léeg ñu ànd ak yow dugg foo xam ne si moom nañ faa bañ a dugg ba faw ndax foo dugg ñu dugg fa kon yàlla si ñoon bala nga ko lay ak ñun ëllëg rawatina nag bind bokk yi léeg ñu nit si ñeneen nañ rey diw signature mbaa ko raay ndax kenn du ko weddi te fekk mënoon nañ koo bañ a raay léeg-léeg mooy nañ ko tëj juróom benn fukki at bind ci loxo bind loxo mooy bind ñu tëj ko juróom benn fukki at te moo ne mën naa am mënoon nañ ko bañ a tëj léeg-léeg mu ne mu bind na nañ génne kii te fekk kooku dañ ko waroon a rey wala ñu tëj ko ñetti téeméeri at kon bokk bokk yi suñuy yoxo ak suñu làmmiñ yàlla daf ñu ko dénk duñu ci def loolu baax duñu ci bind loolu baax duñu ci wax loolu baax duñu ci gindiloo aw nit gindi xam ne ñi koy nett leen mën nañ koo yokk mën nañ koo wàññi te yàlla doo nga tax ngay def nga bind bàyyi li fi ñu ñëw ëllëg ni ko euh, sëñ mag bi defee nga xam ne téere boobu lenn ci ay doom dajale ku ne war na ko wuti jàng ñu ngi ko tudde diiwaanul ak ad ya loolu bu ko bindutoon muy wax kese ak wax ni mën a tasaaroo ak kenn ku ne la na mu ko bëgg a jëfandikoo kenn ko ne dana ko nettalee lu nekk waaye ba mu demee ba xam ne yàlla doom nga tax muy def yàlla la dénk boppam yàlla la dénk ak njabootam daa bind lu nekk mu bind ko nga xam ne téere boobu moom ku ko tëral lu ba àggal te dégg ko danga raw ñu baree bari de ku kenn du raw de amut waaye yow mën ngaa raw ñu bari te boo ko jëfee da nga ñu bari yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu ci suñuy làmmiñ te musal ñu ci suñuy yox te dimbalanu ba suñuy làmmiñ bañ ñoo boole sa ñëy dëtam ëllëg sa wara waaye nag bokk yi kuy de daa am na muy teg ay yoxoom di kuy de day teg ay yoxoom mel ni kuy sujjóot di julli nga xam ne yoxo yi ak nopp yi ñooy tolloo xasba man ka bayka buy buy buy tax buy takbirul ihram kabar armal waaye buy sujjóot it noonu lañ ko noonu lañ ko bëggee kon buy de na xam ne loxo yi da ko wuute